kon jëlisiwaat ak yéen ci mbind mi ñu amal ci téere bu am solo boobu ñu tuddee al fiqhul muyassar lii mooy ñaareelu euh, mbind mi mu aju ci li nga xamante ni mooy aqsaamul miyaah mooy xaaji ndox yi ndox yi nga xamante ni euh, doomu aadama daf koy utiliser euh, dontu borom téere bi sax wala ñu taalif téere bi ñoom tuddeewuñ ko noonu xaaji ndox mais dañ koo def ci façon boo xamante ni ay masail la deuxième masala troisième masala quatrième masala bi ci ñetti masala yooyu ci lañ tudd li nga xamante ni moom mooy xaaju ndox yi xaaju ndox yooyu nag euh, li gën a siiw ci téere borom xam-xam mooy ñetti xaaj lañ koy xaaj mais incha allah dinañ ci ñëw ce que xaaj yooyu wér na wala wérul wala tamit bu fekkee wér na est ce que charia reconnaître na ko wala déet ak charia lan la jox li nga xamante ni moom mooy priorité ci ndox yooyu euh, kon xaaju ndox yooyu rek buñ tënk moom mooy ñetti xaaj la bis njëkk mooy li ñu tuddee almaa tahur mooy ndox moo xam dafa laab ba pare mën a laabale waaye ndox moo xamante ni tamit ñaareel bi mooy ab taahir bi nga xamante ni laab na waaye mënta laabale ak ndox mi nga xamante ne mooy ñetteel bi te moom mooy an najis mooy ndox moo xamante ni ndoxub sobe la allah nañ topp téere bi euh, dinañ gis euh, mbir yu ni mel incha allah euh, kon borom téere bi mu ni ñu ngi ci page 2 borom téere bi mu ni almaau alladi almasalatu thania almaau alladi taxsulu bihi tahaara ndox mi nga xamante ni ci la laab di mën a amee mu ni at tahaaratu lii di laab taxtaaju dafa aajowoo ila shay'in ci lenn loo xamante ne yu bi bihi dañ ciy laabee te loolu lim ci nam moom mooy ndox kon lii di laab balaa koo def dafa am loo soxlawoo pour laab te mooy ndox mooy li nga xamante ne mooy cosaan fekkee dem na ba ñàkk nag wala sax ñàkkul waaye ko utiliser boobaa da ngay dellu ci li nga xamante ne mooy suuf te mooy tiim comme ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam jàngalee. mu ne yuzaalu bihi dañ ciy dindi li xamante ne mooy sobe moom ndox moomu waxoon nañ la ndox moomu dañ ciy dindi sobe benn mu nekk ci palaas sobe bu nekk ci palaas ñu koy dindi wala sobe bu nekk ci yére wala sobe bu nekk ci li nga xamante ni mooy yaramu doomu aadama mu ni wa yurfau bil xadas dañ ciy yëkkati tamit li nga xamante ni mooy toj toj boobu nan lañ koy yëkkatee mooy benn mu nekk toj bu ndaw lu mel ni ngelawal wala dem ginnaaw kër wala saw bu boobaa jàpp moo koy yëkkati bu fekkee ndox am na li cosaan bu amul na ñu dellu ci tiim euh, bu fekkee ni tamit toj bu mag la ñu koy yëkkatee li nga xamante ni mooy sangu waaye loolu lépp rek ndox moo koy def mu ni wa huwa al loolu mooy ndox ndox moomu nag mooy ban ndox mu ni wal maau alladi taxsulu bihi tahaara huwa gis nga kon xaaj njëkk bi ñëw na aqsaamul miyaa kon bu njëkk bi mooy al maau tahuur nee ndox mi nga xamante ni ci la laab mën a amee mooy ndox mi nga xamante ni moom la tuddee al maau tahuur ndox moo xamante ni ndox mu laab la mu ndox moom lay xamle mooy lan mu ni wa huwa tahiru fi daatihi al li gayri mooy ndox moo xamante ni dafa laab ci boppam ba pare waaye mën naa laabale lu tax mu wax lii mooy dina ñëw ci xaayu ñaareel bi am na ndox moo xamante ne laab na par exemple tey bu fekkoon ndox moo xamante ne saabu dugg na ci ndox moom mën nañ ko fóotee ndox moo xamante ne soow tuuru na ci mën nañ ko naan waaye nag mënta def li nga xamante ne mooy laabal te mënta jàpp loolu moo tax mu ni fii attaahiru fi fi daatihi al mutahiru li gayrihi kon ndox la moo xamante ni dafa laab ci boppam ba pare waaye mën na laabale mën na laabal keneen nee na ndox moom mooy ban nag nan ngay xamee ndox moom nee mooy mooy bépp ndox boo xamante ne albaaqi ala asli xilqatihi ndox moo xamante ni ci ni ko yàlla subhanahu wa bindee ci noonu la des ndox moo xamante ni ci ni yàlla bindee ci noonu la mel soppikuwul ak nag dina ñëw incha allah ci leeral moom lay leeral nii mu ni ay lim ci nam mooy ala sifatihi allati bi nga xamante ni moom la ko yàlla subhanahu wa taala bind nee na melokaan boobu sawaawoon moo xam ndox moom dafa wàcc ci kaw asamaan naazilan mina sama kon ndox mu taw da gis ni ndox lan ndox mu laab la ak même bu fekkee dafa saf xorom ak même bu fekkee dafa beneen couleur boo xamante ne bokkut couleur bi ñu xam ci ndox fekk noonu la ko yàlla bindee rek ndox moomu day laab loolu la ci nam moo tax foofu dañuy wax ni ndox bu fekkee ni ko yàlla bindee moo xam mu wàccee ci taw wala mu ballee ci li nga xamante ni mooy ay dex wala mu ci géej wala ci li nga xamante ne moom mooy ay teen ndox moom ak nu mënti mel nu couleur bi mënti mel ak même bu cafka yi nu mënti mel parce ndoxum géej boo leen gisee dafa saf sàpp xorom ànd ak loolu mën na laabal parce que loolu ñu tuddee almaaw tahur mooy ndox mi nga xamante ne ci li ko yàlla bindee noonu lañ ko fekk waaw loolu nag wuute nag ndox mi nga xam dafa soppiku kon ndox mu soppiku bokkut ndox moo xamante ni ci li ko yàlla bindee noonu la mel moo tax boroom xam-xam ne mi nga xamante ne yàlla daf ko bind muy ak couleur mënti yor ak cafka gu mu mënti yor bu fekkee loolu mooy cosaanam rek bu boobaa ndox moom day laab moo tax comme ni ma la ko waxee ndoxum géej dafa saf sàpp xorom waaye dina ñëw ci kam yonent bi aleyhi salaam ne huwa tahuru maa'uhu alxillu maytatu ndoxum géej ndox mu laab la kon lim ci nam mooy ndox mi nga xamante ni ci ne ko yàlla bindee ci noonu la melokaan bi mel kon ndox moo mënti fekk ak foo ko mënti fekk bu fekkee loolu mooy melokaan ba même bu fekkee couleur bi dafa changé mooy melokaan bi wala cafka gi wala la nga xamante ni mooy dafa soppiku mais la ko soppi nekkul lu ci lu ci rax waaye noonu la ko yàlla bindee boobaa ndox moomu day nekk loo xamante ne lu laab la loolu jar bàyyi xel la ñu bëri nañu am yenn saa jax-jaxe ci loolu mu ne lu mel ne ndoxum taw wala ndox moo xam dafa bàyyi koo ci li nga xamante ne zaw ba suluuj ndox moo xam dafa bàyyi ci li ay neige ay barat neige yi nekk ci kaw ndox ma nga xamante ne moom moo ci rogalaan ndox moom tamit dafa nekk ndox moo xamante ne bu mën a laab la ndox mu mën a laabale la laab la waaye mën na laabale aw jaariyan min al fi l wala mu nekk ndox moo day daw ci kaw day daw ci suuf lu mel ni ndoxum euh, dex maa euh, ndoxum dex ak ndox li nga xamante ni moom mooy ay géej wala ndox li nga xamante ni moom mooy ay teen comme ni ma ko waxee mu ni lay tegtal ci loolu mooy yàlla mu ni wa yunazzilu alaykum min as-samaai maan li yutahirakum moom yàlla subhanahu wa moo wàccee ci kaw asamaan ndox boo xamante ni pour ngeen mën cee laabee ngir mu laabal leen kon ndox yii mu wax yépp bépp ndox boo xamante ni daal yàlla mi ngi ko bind ci cosaan na mu mel noonu la ko yàlla bindee noonu la ko yàlla euh, moom toggee bu boobaa dañuy gis ne ndox moom ndox mu laab la waaye mën na laabale wa yàlla mu ni wa anzalna min as-samaai maan tahura ñun yàlla wàccee nañ ci asamaan ndox moo xam ndox mu laab kon loolu mooy xaaj bu njëkk bi mooy almaau tahur kon ndox la moo xam laab na ci boppam waaye mën na laabale mën nañ cee dindi sobe waaye mën nañ cee tamit jàpp mën nañ cee sangu li nga xamante ni mooy sangu janaaba wala sangu set yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni allahuma agsil nii min xataayaaya bilmaai wa thalji wal barad yonent bi alayhi salaam da doon ñaan yàlla subhaana ko ci li nga xamante ne mooy ay bàkkaar mu utiliser li nga xamante ne mooy bilma yàlla yàlla nga ma ko raxasal ci ndox wa thalji wal barat borom xam-xam ne boo gisee mu teg tegle ñett yi nii mooy dafa bëgg li nga xamante ne mooy mu set wicc wicc wicc waaye liñ bëgg a tettalikoo fii rek mooy ndox dafa nekk loo xamante ni lu laab la ndax day dindi li nga xamante ne mooy sobe moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi laajee ne ko li nga xamante ne mooy ndoxum géej est-ce que mën naa laabal mu ne waaw huwa tahuru maauhu alxillu maytatuhu kon ndoxum géej ndox mu laab la waaye la nga xamante ni tamit moo nekk ci biir géej te médd maanaam la fay dund ci biir géej loolu lañ ci nam ñu bëri dañuy jàpp ne boo indee loo xamante ne ci jéeri ji lay dund nga dugal ko ci biir géej gi mu dee fa loolu dagan naa lekk déedéet liñ ci nam mooy luy dund ci biir géej alxillu maytatuhu kon liy dund ci biir géej bu fekkee dee na fa maam méddam dafa nekk loo xam lu dagan la lu mel ni jën jën bu ñu koy génne day fekk mu dee ci biir géej gi mais dagan naa lekk kon loolu la ci yonent bi alayhi salaam nam huwa at-tahuuru maa'uhu al-hillu maytatuhu yonent bi alayhi salaam liñ ko laaj rek moom mooy ndoxum géej ndax day laab waaye daf cee laafaale dolli ci wàll li nga xamante ni mooy atte meddum géej kon dafa nekkoon koo xamante ni euh, ku amoon balaaxa la ku ku jotaloon la ci li muy jottali sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi mu ni wala taxsulu tahaara bi maain gayri l maa nee na li nga la xamante ne mooy laab nag du amee ci beneen liquide bu dul ndox lu mel ni xal vinaigre vinaigre wala benzine mooy essence wala gasoil wala asir jus bu ñuy naan wala laymuun wala lu mënti doon maam benn bépp liquide boo xamante ne du ndox nee liquide boobu mënta laabal kon ndox rek mooy li nga xamante ne mooy mën a laabal mu ni yàlla moo wax loolu mu ni falam tajidu ma an fatayammamu saidan tayiba boo leen demee ba nga xamante ne amoo leen ndox aaya bi mu ngi jiitu woon ci li nga xamante ne mooy wax ba in kuntum marda fekkee da nekk ci tukki wala ngeen nekk ñu feebar amoo leen li ngeen xamante ne mooy ndox yàlla mu ni fatayammamu saidan tayiba na ngeen def lan na ngeen def li nga xamante ne mooy tiim waaw yàlla bu fekkee ne ndox amul na ngeen def tiim borom téere mu ni su fekkoon ne am na beneen liquide boo xamante ni day laabal bu dul ndox kon yàlla subhanahu wa taala dinañu dinañu ci orienté mais yàlla orienté wuñ ci beneen liquide lim ñu wax mooy boo leen amul ndox na ngeen laab ci li nga xamante ne mooy tiim nga ci déggee ni kon li nga xamante ne moo mën a laabal moom mooy ndox euh, kookoon ko ki xaaj bi mu wax masala saane bi mooy xaaj bu njëkk bi ci ci xaaju ndox yi mooy xaaj bi nga xamante ne laab na waaye mën naa laabal ñu koy tuddee almaau tahur xaaj boobu xaaj bu sharia reconnaître la mu ne al masalatu thalitha euh, masala ñetteel masala bi al maau ida xaalatathu najaasa ndox bu fekkee ni sobee dafa jaxasoo ak moom waaw fii damay tënk rek laataa ñoo ñëw ci li nga xamante ne mooy moom la mu àllif bi wax bu ko defee nga comprendre ndox mbokk yi bu fekkee ni sobe jaxasoo na ci dañuy xool déglu bu baax li may wax ndox bu fekkee ne sobe jaxasoo na ci dañuy xool bu fekkee ndox mi bari na bari boo xamante ni toll na ci par exemple trois cent vingt litres loolu ñu tuddee xul la tey dina ñëw ci kanam bu boobaa kenn du xool li nga xamante ne mooy ndox ma sobe na wala am na sobe wala amul bu fekkee toll na ci trois cent litres rek wala trois cent vingt li ñu doon tuddee xul la tey mu nekk am nattukaay boo xamante ni dañ ko daan nattee ci jamono njëkk yi bu fekkee ni dafa li jaxasoo ndox mi sobe la te fekk ndox mi quantité boobu la toll ñu toll ci 320 litres par exemple tey xam naa dina jafee natt ci ay bërigoog yooyu mais li bëgg wax mooy ndox mi bari na bariwaay boo xamante ni bu fekkee ne la jaxasoo moom sobe la boobaa xool ndax am na lu jaxasoo wala lu boobaa ndox mi day laab ndax yonent bi alayhi salaam mu ni ida balagal ma qullatayn lam yaxmil xabas ndox bu fekkee ne dem na ba toll ci quantité boobu mooy 320 litres tey ci suñu jamono ji buñ koy natt nee na bu boobaa ndox moomu nekkul loo xamante ne day yennu li nga xamante ne mooy sobe kon bu fekkee ndox li jaxasoog moom bi ci njëkk mooy dañuy xool ndox ndox mi bari na wala bariwul bu fekkee bari na rek ndox moom dafay nekk loo xam lu laab la dootuñu xool naan est que sobe bu dugg na ci wala dugg ci bu fekkee nag bariwul ah foofu nag la ñuy xoolee bu fekkee ndox mi bariwul moom tollu ci quantité boobu bu boobaa lañuy xool ndax ndox mi Euh, ñetti melokaan yi nga xamante ni mooy melokaan yi borom xam dëppoo ni bu fekkee ni dugg na ci ndox rek benn ci ñoom ñaar ndox benn ci yooyu ndox moom day nekk ndox moo xamante ni sobe la benn mooy cafka gi wala li nga xamante ne mooy xet bi wala li nga xamante ne mooy melokaan bi am na xadis bu ñëw xadis abi euh, xadis boo xamante ne xadis boo kii abi saïd ñu wax ni euh, lii ni yonent bi moo ko mais li gën a wér mooy wérut maam ñetti ñetti xaaj yi nga xamante ni wala ñetti melokaan yi nga xamante ne bu fekkee ni tàbbi na benn ci ñoom yi rek ndox mi day day nekk loo xamante ne sobe la waaye borom xam-xam yi dëppoo nañ ci borom xam-xam yi dëppoo nañ ci maam dalil ijmaa am moo ci am donte na ci xadis boo xamante ni ci kanam euh, doole am na bu ci am mais li gën a wér mooy wérul kon borom xam ñoo ci dëppoo ni benn ci ni ma tudd ñett bu ci dugg ci ndox rek soppi ko ndox moom day nekk loo xamante ni dootul mën a laab maam sobe lañ koy jàppe kon loolu laa bëggoon tënk balaa ñoo dugg ci li nga xamante ni moom mooy li mu fi wax mu ni alma ida xaalatathu najaasa ñu ngi ci page 2 ba léegi mu ni alma ida xaalatathu najaasa ndox bu fekkee ni sobee dafa jaxasoo ak moom fa gayarat ahada awsaafi thalaatha mu soppi lenn ci li nga xamante ni mooy ñetti melokaanam yooyu maam nekkul ñetti melokaan yëpp ñoo war a benn ci ñoom bu ci soppiku rek ndox moom day nekk li nga xamante mooy sobe mu ni bil ijmaa fii nii day junj ni maam amul dalil texte boo xam ñëw na di wax ci ñetti melokaan yi mais borom xam ñoo ci dëppoo mu ni kon laa yajuuzu isticmaaluhu jaaduwul ñu koy jëfandikoo moom ndox moom bu fekkee benn ci def ci tàbbi moo xam xet mi la nga nga ñam ndox mi gis ni euh, am na caf ko bu soppi ko wala nga ñam ndox mi gis ni xet bi xet boo xeeñcoo xet bi changé wala li nga xamante ne mooy couleur ndox bi changé yor beneen couleur boo xam ne couleur ndox bu boobaa ndox moom sobe la kenn euh, du ko war a kenn war ko utiliser waaye kenn mënu cee tamit yëkkati li nga xamante ni mooy toj waaw mënuñ cee jàpp mënuñ cee sangu mënuñ cee dindi tamit li nga xamante mooy sobe moo xam sobe bu duuti la moo xam sobe bu bari la kon loolu la ci nam mu ni amma ida xaalatathu najaasa waaw bu fekkee nag ndox euh, maam ndox moo xamante ni sobe dafa jaxasoo ak moom ndox mi bu bëree moom jarul ñuy wax loolu wax nañ ko bu bëree moom ndox mi même bu fekkee ne sobe dafa jaxasoo moom bu boobaa yonent mu ni ida balagal ma qullatayn lam yaxmil xabas ndox bu fekkee toll na ci quantité boobu qulla bu ñu ko waxee am nattukaay la boo xamante ne euh, da daan jógee fi nga xamante ne mooy Bahrain ñu koy tuddee ci wolof mbuuka mbuuka lañ koy tuddee ci wolof mu day nekk genre ay mbuus yu ngande lay doon yu mag a mag nga xam ñu ngi ko daan defaree ci ay der moo tax ñu naan xilaalu hajar yeneen bàyyi ko fi nga xamante ne mooy Bahrain ñu koy tuddee ci wolof mbuuka yooyu Euh, loolu loolu la yonent bi alayhi salaam wax ni fekkee ne ñaar yu toll noonu ndox mi toll na ci quantité boobu tey ci suñ nattukaay jamono yi ñu koy euh, tollale ci trois cent vingt litres yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne bu fekkee ne ndox toll na noonu am na lu joxasoo ak moom ci sobe bu boobaa ndox moomu du yenn sobe maam ndox mu dagan a utiliser lay doon. moo tax borom téere mu su fekkee ndox dafa am lu jaxasoo ak moom sobe boobu te soppiwul lenn ci li nga xamante ne mooy benn ci melokaan yooyu mu ne bu fekkee dafa bari dafa bari mooy li ma wax sànq bu boobaa ndox moomu du yenn sobe. mën nañ cee laab waaye bu fekkee dafa néew nag dañuy xool ndax soppi na lenn ci li nga xamante ne mooy melokaan yooyu bu fekkee soppi na ko ci rek bu baax ndox moom day nekk loo xamante ne lu laabul la lan mooy dalil bi mooy xadis abi said bi yonente bi alayhi salatu wasalaam mun inna al maa tahurun laa yunajjisuhu shay'un ndox de bu fekkee laab na dara mënu koo sobeel ak xadis ibnu omar ida la ma qullatayni lam yaxmil xabas ndox bu fekkee toll na ci quantité boobu ñu lox 300 litres bu boobaa mënta yenn li nga xamante ne mooy sobe mbokk yi xadis abi saïd bi dollante bi nga xamante ne ñëw na ci te wérul borom xam ne loolu wérut mooy li ñu waxoon sànq kenn lenn ci melokaan ñetti melokaan yooyu wérul wérul dollante boobu waaye nag borom xam-xam yi dëppoo nañ ci kon lii mooy xaaj ñaareel bi mbokk yi ci ndox moo xamante ni ndox mu laabul la ñuy tuddee almaa u najis almaa almaa un najis kon xaaj bu njëkk mooy ndox mi nga xamante ni laab na mën na laabale ñu koy tuddee almaa u tahur bii xaaj bi nga xamante ni laabut ndox mi laabut maam ndox sobe la mënta laabal kenn mënu cee yëkkati li nga xamante ni mooy toj ñaari xaaj yi mbokk yi borom xam-xam dëppoo nañ ci ñaari xaaj yoo xamante ni ñu la mooy ab tahur ak najis te incha allah sax mooy li gën a wér comme bu jeexalee dinañ ci dinañ ko tënk résumé ko al masalatu rabia al ma ida xaalatahu taahir ida xaalatahu taahir loolu mooy ñetteelu xaaj bi mooy ndox bu fekkee la jaxasoog moom dafa nekk lu laab mu ni alma ida xaalatathu maddatun taahira ndox bu fekkee la jaxasoog moom dafa nekk matière bu laab ka awraaqil ashjar lu mel ni ay xobu garab xobu garab lu laab la bu fekkoon tàbbi na ci ndox tey wala saabuun wala li nga xamante ni mooy saabu wala usnaan mu nekk loo xamante ni benn façon garab la ay xob yoo xamante dañ ko daan raxasee li nga xamante ni mooy ay loxo mu naan dindi li nga xamante ni mooy ay jàngoor ay microbe mu ne yooyu bu fekkee ne dafa loolu lu wala sidr li nga xamante ni moom mooy euh, déem garabu si déem xobu siddéem dina ñëw sax ci kanam incha allah xobu siddéem yonent bi dafa digle woon bu fekkee ñi ngi sang néew ñu def ko ci kon xobu siddéem yooyu wala leneen lu dul moom na am loo xamante ni dafa laab lu mel ni tey boisson boisson bu joxasoo woon ci ndox par exemple wala li nga xamante ne mooy eau de javel yooyu yëpp mën na nekk kon wala tamit li nga xamante ne mooy omo kon yooyu yëpp matière la yoo xam yu laab la ci cosaan bu fekkee kon dafa jaxasoo ak li nga xamante ne mooy ndox kon dañuy xool bu fekkee notu ko moom jaxasoo boobu notu ko not boo xamante ni tey buñ xoolee lii dañ na kenn du mën a wax ni lii ndoxum omo la wala lii ndoxam boisson la wala ndoxam sool wala nangam ak nangam bu fekkee notu ko rek bu boobaa li gën a wér moom mooy ndox moomu day nekk ndox mu laab mën nañ cee yëkkati toj waaye mën nañ cee dindi li nga xamante ni mooy sobe loolu mooy lan mbokk yi tey boo tegoon sa paanu ndox toqal ci tuuti boisson wala mu tuuru ci wala eau de javel tuuru ci maam ku ñëw ba gis ni lii day gis ni lii ndox la ku ñëw ba xool li maam kenn xool la li naan li ndoxum soow la wala ndoxum boisson la wala ndoxum eau de javel déedéet bu xoolee day xam ne lii ndox la fekk mi ngi am turu ndox boobu rek di ko yenn bu boobaa li gën a wér moom mooy dagan nañoon dagan nañu daal ci ñu daal ci jàpp dagan tamit ñu yëkkati li nga xamante mooy toj moo xam bu ndab mag la wala bu ndaw la parce que yàlla subhanahu wa taala mu ni wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadu minkum min al ghaid aw laa falam tajidu ma an fa tayammamu saidan tayiba famsaxu bi wujuhikum wa aydikum aay bi jiitu woon na sànq mooy yàlla mu ne bu fekkee a wala ngeen nekk ci tukki wala kenn ci yéen dem ginnaaw kër wala mu ànd ak li nga xamante ne mooy soxnaam te amoo leen ndox falam tajidu ma an fa tayammamu saidan tayiba kon na ngeen tiim euh, famsaxu bi wujuhikum wa aydikum euh, kon mu ni li nga xamante ni moom mooy moo bi yàlla utilisé fii al la wax maa mu ni maa dafa ñëw nekk nakira ci siyaaqi nafi fa yaomm kulla ma nee na ndox mi yàlla subhaanahu wa taala namm fii mooy bépp ndox rek boo xamante ni buñ ko gisee danañ xam ne lii ndox la bu boobaa ndox moomu kenn du teqale li nga xamante ne mooy ndox la moo xam dafa jaxasoo dara wala jaxasoowul dara en tout cas daal saa gisee dañ xam ne lii ndox la bu boobaa ndox moom mën naa laab yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni danaan wax jigéen ñi même bi nga xamante ne ñi ngi euh, préparé ki nga xamante ne mooy doom bi jigéen bi dafa ne leen igsilnaha thalathan aw xamsan waaw na ko sang ñett yoon wala juróomi yoon maam ndox mi jaarle ko ci kawam juróomi yoon wala ñetti yoon wala lu ëpp loolu sax bu fekkee ne gis nañ loolu mu ni bi maa in wa sidr ci ndox ak li nga xamante ne moom mooy xobu siddéem wajal na fi l axirati kaafuuran yonent bi dig leen ni digal leen ni leen na ngeen ci def li nga xamante ne mooy kaafuur mu nekk benn matière boo xamante ni dañ koy utiliser mu xaw am parfum yooyu wala bu ko defee mu mën a euh, dindi yenn xeet yi wala shay'an min kaafuur wala lenn ci li nga xamante ni kaafuur la xadis boobu alimaam Buxaari muslim génnee na ko kon mbokk yi dangay gis ni li nga xamante ne mooy matière boo xam dafa laab bu fekkee dafa jaxasoog ndox bu boobaa dagan na nit ñi utiliser ko naam bu fekkee ne soppiwul li nga xamante ne mooy melokaan bi ci li gën a wér ci waxu borom xam-xam léegi nag kon mbokk yi li jeex na xam nañ ni kon borom téere bi nekkete utiliser na li nga xamante ni mooy ñetti façon ndox yi doonte sax tuddeewu ko loolu waaw muy maa u ak taahir ak li nga xamante ne mooy maa mooy maa u najis kon ndox li gën a wér ci waxu borom xam-xam yi buñ xoolee lii liñ wax fii yëpp buñ ci liñ ci mën a seppee mooy ndox kon nekkati ñaari xaaj la mooy ndox moo xamante ni laab na mën a laabale waaye ndox moo xamante ni sobe la loolu mooy li gën a wér ci wax borom xam kon ni ko euh, yenn borom xam-xam wéralee naam waaye bu fekkee ñetti xaaj am na ñu koy tudd mais ñetti xaaj yooyu sharia ci boppam joxul benn xaaj bi valeur mooy li nga xamante ne mooy at taahir parce que ndox bu fekkee ni benn ndox dara jaxasoo ak moom buñ ko gisee xam ne lii ndox la ñu ni kon lii ndox la mën na jàpp wala bu ñu ko gisee xam ne lii du ndox dañ naan kon bu baax du ndox moo tax sharia li mu rek mooy ndox moo xam laab na pare mën a laabale ak ndox moo xamante ne sobe la ndox mu laab mën a koy utiliser waaye ndox moo xam sobe kenn du ko utiliser amaa nag li nga xamante ne moo xam dañ koy tuddee li nga xam dafa laab waaye mënta laabale bu boobaa dañ naan lii ci sharia du ndox parce que bu doon ndox la rek mën na laabale moo tax borom xam li gën a wér moom mooy li nga xamante ni moom mooy eh, ñaari xaaj yooyu mooy at tahuur wan najis kon incha allah ñu ngi yem foofu ba beneen yoon ci dars bi ñëw di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu li nga xamante ne mooy tawfiq yàlla defal ñu dégg ak topp hada wallahu taala ala wa alam wa salli allahumma wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain